to abaraka ba ba mun be ker kerim babu wolo aka keno nyameng ni ko aka keno nyameng nun to adol be nyaadile parce que ni amoy ko aado nen cosano ka hada maddi ngol signify ite mu jumale ite bota jumale bala wol fanal bota jumale fanal bala ni lan dekkil sa ada aso cosan ake ko nun nyami num na amé dem babu ko ni din ngo jibe e ko aka lon ko yemmen fo xama sa ad aso cosan motax gambian tren tv ak ibu ak babu ñu tok ñu ne ñu fokk yuddu na sun azazji asun cosan hunto alfal kela dimbayali ke kuluno ñaadile ke kulu ñaadile fo ɓuuterolon ban fo ɗum i ka domorolle di la ban fo i ka mun felle di la ñin programme le bi o be seeneyandi la kon kene ku nekk boo buggee xam sa adresse cosan fu nga bàyyee ko samma fu nga bàyyee ko nun to alfaalu ila sunkurundiŋol i kee pare ñaadi le ila dum feŋol fanal be ñaadi le ko mun dum fen siifal le fanal dum ñin programme le fanan be o yitandi la nenarani ko watti sa annde anni woɗon nga feggo fofam tel dindi man kaaje keebal ka julo siti yiro balay ka fo finja julo gay koye ɓe siring eɓe kumo jiija allah kumol bita e dow tarikol fola dindigol ye lu doon am démba lu tax amatul tey la moo tax topp suñu nasaraan fàtte suñu aada ak cosaan ake kenn ñaameng aada ak cosaan ake kenn ñaameng toppa lañu alxames bu jot juróomi waxtu ba juróom-ñaari waxtu fan la mooy amee si Gambian Talents TV Ibou la ak Babou ki nga xamne ne mooy Sainabou Mbye moom moo jot exi egg moom ak ki nga xam ne mooy family friend ak uh, brodam bi su ko defé ñu baye Chérif rek mu ñëw ci Mandinka. all right um, uh, Fadu um, be konton na be tentu la mbe jela um, ok mbaari nga um anal baɗim malem bi kotenke serif <coughs> konte uh, mbale dula to bi wala um, high court wala kiti bumba mi yalon ko uh, wala bale uh, banjul kono ñin tembola pour que mol hakilo bulande domani ndoro ñin nem kesti mi yalon ko abe sena bumbay le tema sena bumbay ane akotoma mi yalon ko ani wala denta ani iterima e ka fo mi ñing kes ñing adamu tata ñamin uh, katun ko ngajira dindin ne fata dindin min yalon ko uh, a uh, atele ñanta ka role play uh, case do kono wolem case timi alon ko ate abubakar keita abo case le kono andu o case ñin kummayata num bakele uh, pour mol hakilo bulandi doman nin hani kabi abubakar keita uh, molem yalon ko ala muso uh, anin min na futu o banta wala atumi tumi uh, wala a tumi uh, ribla kadun ko ako a boyta a kan uh, mi yalon ko aman uh, futkosi wolem anin seyo si biri wo ketanan Eh, anatake dindigo nata sotoje eh, wo dindigo ñing wala ñanta ka juube eh, ka yelota ka jube fo ateñing ateñing bob keta wala bubakar ketati wala ma ba wala ma famati wala fo uh, ah, sungurindigo nyina kambano nyin uh, ah, wala ma famati uh, ah, wakito nyin go bita kan uh, burun uh, nyin kiti fulo ye nyo sotole do manding katun ko dindingo mi yalon ko yentola jubela kiti do to pour long uh, din jumala ma famati uh, wakito nyin pour ka bubakar ketala kito nyin pour keno ase banno wodindingo nyin wala na tafa birin dindingo nyin fata tu kumo rasiya banko kan uh, mune take ate uh, sena bumbayi i naataate muta uh, ka, ka i muta ka sinde dulaa ka tenkunde dulaa pour ka moolu hakkiloo bulandi doroŋ uh, domandiŋ uh, dindiŋo ñiŋ waatere biri a kono uh, ba samba kaŋ sénégal uh, pour ka moolu hakkiloo bulandi doroŋ dindiŋo ñiŋ uh, dindin ne miŋ ko uh, ye bulanu motoo kono le uh, komi k'a fo ñami i ñinata la kono le uh, bitum a naata tere kono fo a ye uh, biri wo keta um, dindiŋo ñiŋ a naata naa bataa ke o bata kono ya samma clinique o to uh, bara hani kabi batama mum ɗo koma fo ñaato inata bonde je uh, ya samba uh, banjol loptano to wolem arveteji uh, bari kol bukata ñaato e eh, kol bukata koma fo ñaato o kola inata bonde je kata samba sénégal dame yalon ko biraɓe ta kanji ani sina bombay uh, ite letata ñola je bari uh, birindindigo ñum fata mune nata ke probléme o uh, diyamo nata siya ate sena bombay bi je tumala min uh, gambian ol uh, eh, igp walam police ol kunton ko anin uh, eh, senegal la uh, interpol ina tana ka je ko uh, kisikisiro nyanta ke senabula nyukutole beri woketa ina tamune ke uh, ye senabo mutanyi senegal kono ka tenkundi je kala kaytol beedeɗa uh, eh, ka samba nan uh, kana nati nan uh, gambia kono jang uh, kadi gambianol la polisol la min ya ko wolle nin a natana wolle nin ka samba uh, a teñin polisol kunda bato a yelaje uh, arduma lungo la a yelaje sibito la a yelaje dimaso la tenengo ala kitiyo ñanta ke banjul magistrate court mi ya ko benu wole to futatanu jele pour ka uh, a banque mole kuol tata ñamen bari uh, kuol man na possible no ka ton ko kolisol koyɓe kiskisroɓe naw la man ban woto wo kammala nin kiskisiro man ban uh, senabula kitio sena bola kitio man nake wolunna wonketa on 25 july ti 2022 sankono bari wotili fulan jango ñum mun keta 26 july ti 2022 bola uh, kiitio en arana commencé ah, ateñi ah, kani fe magistrate court ate min keta senaboti anin ceerno mbay anin keɓele mbay itel beela eh, kiitio natana ah, futa kanake ateñin kani fe magistrate court kiitilamen sita kun to wolen no ceerno eh, wolen magistrate oumar diabanti ya la jenu uh, wolem uh, inspector commissioner abdoulaye saneti anin uh, inspector uh, lamin trawalati wala sitanu atoya la jenu kiitiyo natana uh, ah, tenteng bari uh, ah, kiititela ñing uh, eh, police ol fon la sem e tukutanu loi loi men na loi bu ko men uh, ah, criminal court ti uh, ala bunda keme bunda tansey anin uh, woron jango anala bunda keme bunda tansey anin kononton jango uh, pour kaje ko uh, ise senabu kitindino wo bunda ñing uh, ya tola e ka fo uh, manslaughter woto kamma la uh, biri wo meta nte bena ta la kono to domande dɔrɔn bari bena fintila uh, n'a kɛtɛ ñamin doron fɛn fɛn information o information soto k'a mol la isa fahamu ko iñanta k'a fahamu ɲamin uh, bari ɲi waato tayimo ti ye baa pour ka kol be sen kan bari kor kitiyo bena kɛla a tɛmɛ la alaabaraka yes Sheriff uh, uh, Konte uh, moom nag moo war a dem duga si li nga xam ne nag moo nekk si biir mun nga bàyyi fii baag bi dinaa ko toppatoo su ko defee rek nga dugal baag bi fii si biir fii ki nga xam ne mooy Sheriff Konte nag moom mooy suñu reporter bi nga xam ne jamono ji nag moom mooy nekk si biir kot um, bi comme ni leen ko faral di leen ko waxee rek si biir um, court nag duñ fay faral di duga ak li nga xam ne moo nekk caméra waaye euh, jamono ji ki nga xam ne mooy euh, Sainabou euh, Mbye egsi na si li nga xam ne nag mooy high court bi fii si biir Banjul ki nga xam ne nag mooy family friend moom tamit egsi na ki nga xam ne mooy gaay seen broda bi moom it egsi na ñoom ñette yooyu noonu daal duga si neen si li nga xam ne mooy court bi bu ko defee rek Yusufa nga téel Ndey Fatou moom mu ñëw si angale wals rek ñu mun a waxtaan askan bi bu baax so toppaleen Gambian Talents TV saa su ne ah, ñu indil leen li nga xam ne mooy xew fii nga xam ne mooy court house bi ñu indil leen lépp loo xam ne moo fi am ah, ñi nga xam ne nag ah, ñoo nekk police bi ñoom nag ñu ngi amee xam ne moo nekk place bi di garde li nga xam ne moo nekk ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw tey ku ñu war leen a aate ndey eh, ma bàyyi la rek nga nu briefly rek lan moo nekk di happen Oh, good morning, everyone uh, watching live from Gambian Talents TV. We're here at the High Court, Banjul High Court, to witness the trials of Senabu Mbai. Uh, she just arrived like minutes ago with a family friend and along with her brother. So we are urging everyone to watch Garment Talents TV, wherein we will bring to you fresh juice, uh, fresh news from the High Court. We have our reporter, Sirif Conte, who is uh, right now in the courthouse. Thank you. Dan gisee eh, si bi nga xam ne moo nekk keesi eh, boob bi eh, bi moo ñëw fii so court bi moo nekk nii ngeen gis ñu indil leen just a brief description ngeen hall li nga xam ne mooy place bi mun bunta am nag ay nit yoo xam ne la ñoo mun interview waaye nag ki nga xam ne mooy Sainabou egsi na jamono ji comme nag nuñ ko waxee and then ñu riidal leen ko rek yéen ñi nga xam ne yéen ay ñi nga xam ne nag Gambia Police Force hours euh, bi nga xamee ne euh, si benn euh, Tuesday bi nga xam ne moo passé bu yàggut noonu nag ñoom nag ñoo jël li nga xam ne mooy xale bi nga xam ne moom moo génn àddina bin ko inee si biir Gambia nag ñu yóbbu ko téye bum ko su ko defee nag ñi nga xam ne nag ñoo nekk Seynabou ak rakam bu góor bi nga xam ne moo nekk Cerno Mbay ak Kibili Dembel ñoom nag ah, ñoom leen ah, jàpp ah, yóbbu leen si li nga xam ne nag mooy woon si police bi foofu lañ leen teg waaye it bi nga xamee ne dem na ba si kanam ak kanam ak si lañ leen yóbbu fi nga xam ne nag mooy mile two bi ki nga xam Uh, police spokesperson bi uh, muy superintendent Lamine uh, Ndiaye uh, moom nag uh, moo waxoon ne ñii nag den leen arrestoon bi nga xamee ne nag den involve foon si li nga xam ne nag moo day um, dee yi ndaw Ah, loolu nag moo nekk ah, moo taxoon ñu arrest leen ah, ba léegi nag gaa ngi doon def seen investigation li nga xam ne nag moom leen publicoon jamono ji nag comme nu ma leen ko waxee rek yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV bu ko defee rek ngeen wan ñu atmosphère bi journaliste yaa ngi noonu di dugga si li nga xam ne nag mooy biir court room number four foofu la gaa yi nekk jamono ji bi nga xamee ne fu mu nekk nii nag nit yaa ngi dugga si muy yeneen journaliste yi di xool euh, naka la fa euh, code bi di demee suñ reporter bi di Sheriff Konte mu ngi si biir xam naa nag si kanam tuuti su code bi demee bi xaw a jee dina leen inil euh, li nga xam ne moom la jot a jël si li nga xam ne mooy code bi bu ko rek ñu ñëw describe leen environment yi Eh, one on environment Yeah, if you want a high court yi uh, Banjul be. ma ne ko fii moo nekk high court yi Banjul bi ngeen ay seen uh, benn par benn uh, fu mu nekk nii ba léegi rek comme nun leen ko waxee yéen a ngi Gambian Talents TV bi nga xamee ne nag court baa ngi nii nit yaa ngi si biir di xool naka la fa court case be di demee ak lan la di war ini kon nag um, investigation mu go on Sainabou mu ngi woon fi nga xam ne nag moo nekk daka ah, foofu la nekkoon ah, balaa nga xam ne ne eh, si la ñëw Gambia bi nga xam ne si lañ ko defoon ah, charges yi nga xam ne yooyu la ko gars yi jote def jamono ji nag mu ngi jógee fi nga xam ne mooy mile two moom nag ak ki nga xam ne Euh, mooy euh, rakkaam bu góor bi ak family friend am bi euh, di Kibili a ñoom nag ñoom ñoo jota egg si jamono ji ak yeneen officers yi nga xam ne ñoo jógee foofu si Mile 2 bi indi leen kon nag mbokk yi Ling and Nekadiges. Um, if you're watching the Gambian Talents TV, we are right here at the Banjul High Court. Um, this is the High Court of uh, the Gambia. Um, right now, this is the case that involves um, Senabumbai, the ex-wife of uh, Babukar um, Keta, um, commonly known as uh, Bob Keta. Um, this current minute, um, Senabu just arrived with a uh, few family members and friends, and um, they're inside inside the courtroom number four. So as of now, we don't know what is happening inside, but we will um, take time. Um, our reporter is inside uh, to witness what is happening, what are some of the charges that the judges will be doing, and how it is happening. Um, some of the things that you know um, it's going there, we would um, get to know from our reporter um, Sheriff um, Conte. So Beligirek um, Woka Inunlen Kawaherek, uh, Yena Geset and uh, Gambian Talents TV, uh, Buko Deferek, Ngena Set Lingahamnenak Mois and Banjul Kodbi, Fufulen Neka, Fum Neka Nidal Mugini. Buko Deferek, New Del Wat, New One Len Lingahamnenak Moi Plus bi, Manako Moi Court Room bi. yéen a ngi gis gars yi ma ne ko yéen a ngi gis lawyer yi ay lawyer yu jigéen leen ñu ngi dem ma ne ko ñu ngi dox ñu ngi dem ñu ngi noonu di dem ngeen seen ñu ngi noonu di dem di dem ci li nga xam ne mooy court euh, room bi kon nag euh, bu leen yaakamti ma ne ko kon nag bu leen yaakamti ngeen xaarande ko tuuti rek euh, di ngeen am lu leen si óor ak lu leen si leer ku ngeen xam lan moo nekk di go on ko lan moo the two year old baby who whose death is the subject of investigation. She was escorted by vehicles with registered number GG0431A and AIGC159WL. The team was received at Banjul terminal by another vehicle with the registration number BJL3036Q to the vehicle with the registered number GG04431 and was escorted straight to the police headquarters while the ambulance carrying the deceased child drove to the Edwards Francis Multigen Hospital. The police issued a statement titled Sienna Bombay safely returned with disease baby am now in the police custody in a press release and below is the full press statement for the public consumption. Following following the initiation of contract through Interpol for the shift facilitation of return of Siena Bombay and the disease and the disease child, the invest, investor, the Inspector General of Police hereby notice the general pub, the public that they have safely arrived and are in police custody. The police of IGP wishes to take this opportunity to register reform, gratitude, and appreciate to the Senegalese security through Interpol Gambia for their collaboration and swift response in these critical matters. The public is further reassured that all necessary measures will be taken to delay investigation the accident pertaining the date of the baby and an appropriate action shall be followed. Meanwhile, police ban granted of Chernobyl and Kibili has been revoked as the investigation interface, they are equally under police custody. In regards, members of the police are strictly warned to the to the D's from taking the law into their own hands for interfering into the process of any reason. Such, interf such interference will not be tolerated as the peace and the tranquility of the country will be compromised the public is further reminded to continue exercising routines and this is from re revoking situations of unrest. All are urged to allow due process to be followed throughout. The IGP wishes to once again. waaw uh, say uh, linga wa amna am na solo ki nga xam Siga uh, Doctor Siga Diagne mi nga xam ne si TRRC bi lawyer Siga Siga Jaxate momone kanono nekk noonu ngeen a gis ma ne ko moo lawyer bi hamne mo ne kanono duga silinga hamne nga courtroom ne mooy court room four dafa mel ni dafa bokk. Ah, ñi nga ah, doxal ah, case bi kon xaar ki nga shérif mu gën nga all right by Mustafa jallo okay authorities in the Gambia police force GPF on Tuesday announced that they have detained two subjects, sub suspect in connection to the death of Mohammed, a two-year-old and currently a subject of an alleged rape trial, including Bob Karuketa, an accused person. The two individuals named Chornomai and Kibili, according to the police, according, according to the police, were arrested of their role or involvement in the accident leading to the death of the child. They are currently helping police in their investigation, said police spokesperson. Lamijai. The latest development comes in a week following an outcry from the concerned Gambians. We call on the state, particularly defendants in the police force, to immediately investigate the mystery death of the child. A statement received from the police spokesperson says the, the police Inspector General of Police is currently investigating the case of a sudden death of a child under a, sus under a suspicious circumstances. According to the statement, that the child, two-year-old Mohammed, is the son the son of Fatun Ngonembai, a resident of Latin Kunda Sabiji and currently a student of an alleged rape a subject of an alleged rape case at the Bundung High Court, including Bob Keita as an accused person. On Sunday, 10th July 2022, the police added disturb disturbing reports were received concerning the ultimate date of the of the child's set. On a under negligent circumstances, prompting the police to open and shift room into the circumstances surrounding the accident. An investigation panel was quickly constituted to our investigation the case with a view of prosecuting all individuals found wanting in the death of the, the child, the police said. It stated that facts revealed that on, on Sunday, 3rd July 2022, at Bursubi in the West Coast region, the child, Mohammed, was left inside a car, ultimately with doors and windows locked. The child passed out in the vehicle and was the child passed out in the vehicle and was rushed to the Af Afriman clinic, then later referred to the Edward, Edward Francis Mortician Hospital and successfully moved to Dakar on Monday, 4th July 2022. He was accomplished to, he was accompanied to Dakar by Senabu Mbai, sister of Fatungo Ngone when he died eventually, narrated by the police. The statement said the panel took immediate step as follows. Home visit was conducted at the family house of Sena Mumbai when news of the death of the baby in Dakar was confirmed. Several witnesses have been interviewed and their statement have taken to corroborate facts and issues regarding to the accident. Sena Mumbai has Sena Mumbai has been contracted in Dakar to expand have returned with the disease for the and for the medical examination to be carried out. However, she is yet to return to the Gambia. Jeff, jërëjëf uh, ki Kinga, Hamne, uh, ne Ndeye faatu euh, su ko defee rek ñu bàyyi la nga dem tuuti rek si kaw nga observal ñu lan moo nga ñëw nga indil ñu xibaar yooyu noonu ñu bàyyi ko euh, moom it mu eeg si kaw indil ñu li nga xam ne mooy xibaar yi nga xam ne moom la euh, jot am foofu noonu. si ma ne ko gis ngeen beneen looyaa ngi noonu di dugg si mu ngi def mag sam nag moo tax ñu bari duñ ko gaaw a xaame waaye mu ngi noonu di dem ma ne ko gis ngeen ko baa ngi noonu dugg li nga xam ne moo nekk si. biir ah, bu ko defee rek ñu bàyyi Ndeye Fatou mu dugga moom mu wax ñu ah, lan la fa gis o lan mooy xew ah, jamono ji lan mooy xew jamono ji Fatou Ah, mu ngi wax si ah, téléphone ah, balaa court case bi di jot a start moom Kek Saane mu ngi noonu o oh, di ko jox maay so di nga xam ne ndey Fatou mi nga xam ne moom nag moo amee court bi génnoon na léegi si biir ñu bàyyi ndey Fatou mu wax ñu lan moo nekk di happen right now si biir court room bi Ah, comme ni ngeen ko gisee képp ki nga xam ne yaa ngi ñëw seetaan from Gambian Talents TV information bu am right now moo nekk code bi dooragut ñi nga xam ne ñooy jooji si ñoo nekk di dugaangum ak yeneen ah, press uh, people uh, ki nga xam ne mooy Sainabou Mbye ñu ne nekkagul si li nga xam ne mooy courtroom number four uh, rakam bi moo fa nekk Conno ak Kibili waaye moom si boppam nekkagul si li nga xam ne mooy courtroom bi dooragul jooji si ñoo nekk di duga ak yeneen nit ñi waaye dafa mel ni sax court bi du des pour mu fees tuuti rek la su yaagee duñ alaaw kenn mu duga waaye ki nga xam ne mooy Sainabou Mbye moom nekkagul li nga xam ne mooy courtroom number four Kibili moo fa nekk ak rakam bi di Conno mbay li nga xamne moy court bi euh, comme ni ngeen ko benen George Nyona, euh, George Gomens, euh, mom mo nek nonu ngeen a seen mom mo just duga ci biir court room number 5 court room number 4 rada court room number 4 fofu la nek jamono ji bu ko def mu ngi nonu di romba yena ngi nonu di ko seen mu ngi anda kena ñom ñaara nonu ño nek di anda mu ngi dox di dem ci fi nga xamne nak moy court room bi ma ne ko dem ah, si fi nga xam ne mooy court room bi ah, nen taaxeelu rek ma ne ko nen taaxeelu ah, ñu xool comme ni ma leen ko waxee rek kex mi nga xam ne moo ñu dee jox a lot of information pertinent to um, bi ak ni moo demee unfortunately moom nag mun a but ñoo waxabum um, anything comme ni nga ko gis yeneen judges ñu ngi noonu ñoom ñu ngi noonu di dugga si li nga xam ne nag mooy um, court room bi ñoom ñu ngi noonu nag mu ngi file sam mu ngi téye ay files am maanaam ay paper yoo xam ne xit na si la moo ah, dem ku war mu ngi si George room bi ah, George room bi foofu la dugg ah, jamono ji nañ ñu xaar sagar looya sagar jahat mu ngi nono di si fi nga xam ne nag moo court room number four moom sagar ba ngi noonu uh, di dugaat ajam uh, moom moo amee lu mel ni uh, mbaxana sëriñ boobu nono ngeenaay seen noonu moo di dem tey xit na doo leen ko xaamee soo leen ko gisee ma ne ko xit na doo leen ko xaamee jamono ji lumo ne ko hamunko. leen ko xaamee di ko di lu def si code bi xamun ko um, honorable how are you you okay waaw mu ngi noonu lu moo def si code bi xamun ko ko lu moo def si court bi jamono ji xamun ko waaye mu ngi noonu ah, just duga si si li nga xam ne mooy am court mi moom it euh, ne moom family friend la euh, su ko defee rek euh, na nga def. unfortunately gars yi ñoom nag dafa mel ni family leen ah, bat bëgguñ ta wax ak ah, media bi ah, kële nag mu ne moom mu ngi tudda Mohamed Mbye moom broda la si Seynabou Mbye but this current minute moom nag bëggut a wax ak press bi ñu baalal ko ki nga xam ne nag mooy gars jigéen bi àndal muy jigéen bu xaw a mag jigéen bi nag moom xaw na moo ñàkk ku ñiti ñu wax moom waaye it ñu ngi gis Mohamed a dem li nga xam ne mooy police bi mu ngi escort gars yi ñoom it ñu ngi dem si li nga xam ne nag mooy court um, room bi uh, Mohamed Mbay moom moo demagum waaye ñi nga xam ne ñuy la àndal uh, muy yeneen uh, ñett yeneen foo ñaari jigéen ak ñetti jigéen ak benn góor ñetti jigéen ak benn góor góor bi nag mu ngi sol xaftaanam jigéen mi mu ngi def kaala si li nga xam ne nag mooy boppaam comme ngi def li xam ne moo ngi def kaala keneen ki nag ñu ne mohammed moom rakki bola. la ah, moom Mohamed rakki Sainabou la ah, bu ko defee rek ah, mënunta wax ak gaay ku ñu xam ñeneen ñin ñan leen si li nga xam ne nag mooy waa ñoom Sainabou waaye nuñ ko gisee rek dafa ay family friends leen bu ko defee rek ñu taaxeerlu ma ne ko bu ko defee rek ñu taaxeerlu seet na dinañ mën waxtaan ak gaay ndax duñ mën waxtaan ak jamono ji ngi di comme leen ko waxee parce que koot la xit na xamaguñ lan mooy dem si biir ah, moo tax ñu bari si gars yi ah, pare woon ko wax ak ñun waaye ba léegi daal gars yi nangoo buñ ko gars yi ñu dugg si biir ñoom ñu ngi answer ay questions ak ah, li nga xam ne mooy police bi ko ñoom ñu ngi answer ay questions ak police bi kon taaxeelu leen ñu xool ma ko taaxeelu leen waaye broda bi nag moom wax na ne moom Mohamed la tudda Mohamed Mbay euh, loolu rek la jot a wax euh, balaa muy euh, duga waaye mi ne ñu baalala buñ ko ba si kanam kon nag dinañ ko baalal ba si kanam xëj na su génnee dinañ seet naka la ñoo waxee ak moom ak lan lañ koy mun a laajte si li nga xam ne moom ak Seynabou noonu la gars yi bokkee ak lan la xam si Seynabou mbete it si li nga xam ne moo diggante bi nga xam ne mooy euh, jamono ji li nga xam ne moo nekk euh, fii euh, kon nag gis ngeen gaay yi ba léegi dugabun ma ne ko ba léegi dugabun police yaa ngi noonu di wax ak gaay ko police yaa ngi noonu di wax ak gaay ñetti jigéen ñi ñu ngi si gannaaw broda bi nag muy Mohamed Mbay moom moo nekk noonu si kanam ba léegi rek gis ngeen ne Mohamed Mbay moom moo nekk na si kanam mu ngi sol li nga xam ne mooy simis bu ñuul amee li nga xam ne mooy lunette si kaw beneen broda bi nga xam ne moom la gaay àndal broda dara bi mu ngi def li nga xam ne moo nekk um, naka la mbaxana ak uh, xaftaan uh, moom nag moo ñu uh, riis loxo ne duñu waaye ba léegi rek nangu woon ku gaay ñu duga nangu woon ku gaay ñu duga di dem gis ngeen jigéen bi nga xam ne moo def kaala xamun kooku lan la nag si Sainabou ma ne ko xamun lan la si Sainabou try nañ ko wax ak moom but xamabun ah, moom mooy kan ma ne ko xamabun moom mooy kan so jigéen bi moom nangu Euh, si luñ jot a gis dafa mel ne jigéen bi dugg na si biir euh, jigéen bi moom dugg na si biir waaye ñeneen ñi nga xam ne ñoo ñu la àndal ñooñu moom dugaboon ki nga xam ne mooy Mohamed nag mu ngi nuyu wante ak euh, police yi nga xam ne ñoo taxaw foofu si bunta bi mu ngi joxante gaay yi loxo waaye ñoom daal ñu ngi leen tegabum benn place ñu ngi leen tegabum benn place kon nag taaxeerlu leen ma ne ko taaxeelu leen rek ah, ñu indil leen li nga xam ne moo nekk di xew ah, fii si um, court house bi ah, li nga xam ne moo nekk di xew fii si biir court house bi ak naka la moo xewee ak family bi ku seet ñu ñooy ñaan si li nga xam ne moo nekk Sainabou dinañ bugg a waxtaan ak gaay so xaaral ma dem seet na dinaa mën a approach gaay ku waxtaan ak gaay Eh, yaayi Sainabou moom moo romba noonu yaayi Sainabou Mbye ah, moom moo jota romba ah, keneen ki nag ah, brodam la ñu ne keneen ki brodaam la but unfortunately yenen ñit yim àndal ñu ne ñeneen ni onkulam leen ñeneen ni antiem si luñ jotee dégga ku sol mbaxana bi mooy borom xaftaan bi moom mooy Mohamed Diallo moom lan la si Sainabou no waxuñu waaye mu ne nañ kanam dina wax waaye yeneen jaxa yu gay àndal dafa mel ni ñoom bugguñoo Guntawa all right uh, kon nag uh, dégg ngeen ko waaye yaay ji moom nag duga na si biir uh, court house bi yaay Sainabou moom ngeen gis noonu mu soloon li nga xam ne mooy abaya bi teg si kaala bi def li nga xam ne nag mooy max bi kooku mooy yaay Sainabou Mbye kooku mooy yaay Sainabou Mbye moom nag moom moo duga léegi si biir yeneen nit yi ne moom la àndal ñooñu moom nangu woon ko ñu duga jamono ji looya sega gar jahate moom gena gis na le ma ne ko lawyer sagar jahate mom la nekk di seen jamono ji moom nag ak lawyer governments ñoom ñoo nekk together ko ñoom ñoo nekk together this minute but ki nga xam ne nag mooy beneen lawyer bi kooku mom xamun ko waaye lawyer sagar jahate moom ngeen nekk di seen noonu si kaw waaye ñi nga xam ne ñooy ñoo jot a ñëw noonu muy family bi unfortunately ñooñu nag moom Euh, buga bunta wax ak ñun euh, buga bunta wax ak ñun fo naa ñu ne ki sol abaya bi ngeen ay seen kooku mooy euh, yaayi ki nga xam ne moo nekk Senabu Mbai Yayam, Kokumo Yayam. Uh, the woman you were just seeing wearing the abaya um, together with the max um, cover up herself with the uh, veil that's the mother of Sainabo. Unfortunately, the other people that came together with um, the family friends were not allowed to get in as at now, but uh, mom is right inside um, the court at this current minute. So stay tuned and uh, we observe what is happening and how it is happening but lawyers are now coming in uh, one by one ko nii rek la lay demee fii si Gambian Talents TV ma uh, ne ko fii si Gambian Talents TV ngeen taaxeelu rek uh, ki nga xam ne mooy bébi bi moom nag uh, génn na adina waaye tey la gaay di def li nga xam ne court tey mooy nekk force am um, court case bi nga xam ne la gaay nara ñëw aate Euh, moom euh, mi nga xam ne mooy Sainabou Mbye euh, di ex-wife yi moom moo ñëw ak li nga xam ne mooy yeneen nit yi nga xam ne ñoom leen tudda seeni tur si li nga xam ne mooy problème bi ki nga xam ne nag mooy Cherno Mbye ak kii Billy Dambel moom nag family friend la jamono ji ñoom ñoo ñëwagum si li nga xam ne mooy court house bi mu ngi si biir court house bi waaye si kanam tuuti rek ah, dina leen ko am ñu wax leen li nga xam ne moo nekk di xew ah, yeneen famille yi nga xam ne ñoom ñoo ànda ak ah, Sainabou ñoom nag alaawoon gars yi ñu dugga bum si biir ñoom nag ñoo nekk noonu taxaw ñoom ngeen a gis mooy janxa bi nga xam ne moo sol lu ñuul li mu ne mooy janxa bi nga xam ne moo sol lu ñuul li def mees bi moom nag alaawa buñ ko mu dugga so ñoom it ñu ngi taxaw ma ne ko ñoom ñu ngi taxaw ma ne ko ñoom ñu ngi noonu taxaw ko ñoom ñu ngi noonu taxaw ah, mbaadi mandinkulu mbal ah, tentula mbal jayla mo mom yalon ko yibe mol jibe kanne from gambian talents tv sante mol ferentale High ah, Court on into uh, Sena Bombay Ikaman Dum Follow Courthouse number four bari nyum keta abamati abama natale ana dokoma keo anin inin sunkutu fulo dole fanam be silo kan bari nimwol man diamuno follow sainten koto nying man dati bara sike minti dantan wala tuta je dati itol dum mum sena bu doko biko ma kewti aman dum anin anin sunkudu fulol mum be silo ka bari ñimmum ma bamati a bama be uh, kono tole bari koto ñimman dati folo corno mbay aɓe konoto anin ñimmum kibiliti wol fanan be konoto lool gis nga ne ah, gars yi ñu ngi dugg si biir muy looya ah, ah, yi ñoom ñu ngi di dugg sibir, biir waaye family yi ñoom nag alaawa bun gars yi ñoom ñu dugg kon nag loolu leen nga di gis nii ma ne ko loolu ngeen nekk di gis ni code bi dafa mel ni ngi dugg door si parce que gis nañ ne nit yaa ngi dugg si alright uh, kon nag uh, ni ngeen ko gisee rek um, ñu ngi leen doon wax ne um, Sainabou family am ñoom it egsi neen family am uh, jigéen bu ñuul bi nga xam ne moom moo sol yére bu ñuul bi ñu ne kooku sista Sainabou la waaye beneen jigéen bi nga xam ne moo sol kaala bu pink bi ñu ne jabari brodaam la jabari brodaam la keneen ki nag ki nga xam ne moo def lunette bu ñuul bi sol simis bu um, Euh, ñuul bi euh, def lu ne tam euh, moom nag moo nekk ki nga xam ne moo nekk Musa right Musa Musa Musa Ba Musa Mohamed right ok ñu ne Mohamed la tudda um, unfortunately uh, ñoom nag waxabunta ak ñun so moo tax um, we are finding it difficult waaye ñu ne uh, Mohamed la tudda Mohamed Mbaye uh, moom nag wax na ak ñun nice but mu ne si kanam tuuti dina jéem a wax ak li nga xam ne mooy presse bi kon nag loolu ngeen nekk di set, start na jamono ji dafa mel ni court bi start na comme ni ngeen ko gisee mu ne ko dafa mel ni court bi ni ngeen ko gisee start na dafa mel ni koot bi jamono ji start na dafa mel ni koot bi jamono ji start na ah, ki nga xam ne moo nekk sun reporter bi mu ngi noonu si kaw ah, ngeen seen ah, mu try nag ko wax ak li nga xam ne mooy Mohamed but unfortunately dafa mel ni broda bi daal mu ne ñu xaar mu ne ko bi ñu xaar Euh, bu ko defee rek euh, ñu xaar euh, comme nu ma la ko waxee rek um, all the time du ñëppaay pare ku um, waxtaan ak li nga xam ne nag mooy media waaye ñu respectal leen ko waaye dineen um, toog rek di observe li nga xam ne mooy environment bi but seena bu moom ñëw na ma ne ko seena bu moom ñëw na buy jota egsi moom it ko weakness li nga xam ne nag mooy code bi ko weakness li nga xam ne mooy code bi bu ko defee rek nen taaxeerlu ma ne ko nen taaxeelu bu leen ah, yaakamti ah, sun reporter bi de Sheriff Konte dinañu indil everything li nga xam ne moo nekk di happen ah, foofu noonu Sheriff dina leen indil xibaar yëpp ni nga xam ne loolu mooy happen si court bi am ruling si nga xam ne yooyu la judge bi def ak naka la xewee ak lan moo nekk di go on this current minute di Ndeye Fatou demoon na si kaw ku wax ak family bi kan nga waxal wax naa ak Mouhamed Mbye ah, he was so nice because dama ko wax ne na mun naa ko am pour ma laajte ko some questions waaye mu ne fu mu nekk right now du mun a wax ak presse bi nañ ko xaar ba su wàccee mu mun ñu jox that opportunity but according to my observations lu ma gis mooy court bi ah, door na balaa ma doon wàcce gis na judges yaa ngi ah, sorry lawyers yaa ngi introduce seen boppa jamono yuñ toll ni koor bi door na ñu xaar Sirif ah, Konte suñ reporter bu nekk si biir mu gën ñu jox clear information and more details about what was going inside the courtroom. if ah, fu mu nekk case bi um, léegi la doog start so naka la nekk di demee ak lan moo nekk di xew si biir uh, foofu moom nag uh, wax dëgg neex yàlla uh, mënun la naa indi la bum dara Sheriff mu ngi si biir mu ngi déglu mu ngi jël am um, note of lan la gaay nekk di wax ak naka la ko gaay di ko waxee ak lan la gaay nekk di aate o lan la li nga xam ne moo nekk different different judges si loolu la gaay indi ku wax bu ko defee rek dinañ leen remind case bi li nga xam ne moom moo xew diggante uh, ki nga xam ne nag mooy bébi bi ak ki nga xam ne moo nekk anti bi comme rek nuñ leen ko waxee Sainabou demoon na fi nga xam ne mooy Sénégal nekk foofu noonu yóbbu woon li nga xam ne mooy ndaw bi uh, just rek ku uh, seet naka la ko gaay di ko jàppale ko bu mu ñàkk bakkanam waaye ñëwaat na fii si biir Gambia bi si ajuma bi di 22 July July 2022 uh, moom Sainabou nag uh, gaa yaa ngi ko uh, dugaloon si li nga xam ne mooy investigation boo xam ne nag ñu ne dafa involve day li nga xam ne mooy ndaw ndaw boo xam ne nag jamono ji suñ ne ndaw deena foog rek ñu xool naka la loolu xewee si la police yi demoon ku dem iniji ko muy di Gambia police force foofu noonu si Banjul Barra Euh, foofu la ko gars yi téye euh, li nga xam ne mooy seeni euh, moto nekk di ànd ak moom Sainabou ñëw nag ba fi nga xam ne nag mooy Banjul di leen wax ne rek moto yi nga xam ne ñoo ko exportoon comme ni leen koy waxee rek register number bi moo nekk GG 0431 ak A ak li nga xam ne nag mooy A1 G C159 Euh, ñoom namba yooyu ñoom ñoo ko indi euh, si li nga xam ne nag euh, moo nekk Banjul police bi Ah, foofu la ko gaay ini ah, teg ah, si li nga xam ne nag mooy benn place waaye moto yi nga xam ne ànd nañoo moom ànd ak li nga xam ne tamit mooy ambulance moom it ànd na mook moom yóbbu li nga xam ne nag mooy ndaw bi si fi nga xam ne nag mooy Edward Francis Small Teaching Hospital foofu la gaay nekkoon ak li nga xam ne nag mooy ndaw bi yéen yi nga xam ne xamul leen lan moo jot a xew ñu indil leen xibaar yooyu li nga xam ne nag mooy Gambia police Uh, force uh, ñoom nag uh, wax neen mbete yit um, issue neen a statement ñu title ñu ne Sainabou Mbye safety return with the disease su ko defee rek mu nekk ki nga xam ne mooy ndaw bi nga xam ne moom moo génn àdduna moom nag indi neen ko ak ndaw bi waaye ñëw na si jàmm press release boobu nag gars yi defoon neen ko si li nga xam ne harmonica si uh, media house bi uh, different media house tamit uh, publish nañ ko ñoom it ci seen bopp publish nañ ko ñoom nag wax nañ ne li nga xam ne moo nekk Interpol ñoom it defal nañ leen ay liggéey just rek xool ne ndaw bi mu ngi si jàmm ak salaam te it ñëw na si biir dëkk bi si li nga xam ne moo nekk jàmm ak salaam te it du am benn jafe-jafe te it benn problème kon nag taaxeelu leen rek ma ne ko taaxeelu leen ah, ñu indil leen li nga xam ne ah, mooy xew fii ah, seen mbokk seen xarit Fatou Samba moo leen fi nekkal Uh, uh, ak Ndeye Fatou Jaxate ak Sheriff uh, Konte together with ki nga xam ne mooy Youssoufa Ba moom nag moo leen a defalal caméra work bi kon nag bu leen yàkkamti taxelu leen rek ñu xool naka la nekk di demee ak kan ak kan ñoo nekk di ñëw ñan ñoo involve si li nga xam ne nag mooy kees um, si tey bi mu ngi nii ngeen a seen ndax koor bi jeex na jeexagut xamaguñ si ah, lu leer waaye gis nañ ne ah, gars yi ñu ngi start di ah, génna ma ne ko gars yaa ngi start di génna gis nañ ne ñit yaa ngi génna xamul nag exactly fan la ñiti di a dem ma ne ko xamaguñ fan la ñiti di jéema dem bu ko defee rek ñu tax taxeerlu su ko defee jaxate nga daw indi lu ñëw information lan moo nekk di Ah, nen xool ma ne ko nen xool rek ah, fu mu nekk ni moom observation rek la ñoo def ma ne ko fu mu nekk observation la ñoo def sun reporter bi Sheriff mu ngi noonu si kaw ma ne ko sun reporter baa ngi noonu mooy Sheriff ah, jamono ji nag dinañu indil moo um, information ak li nga xam ne mooy xibaar li nga xam ne mooy xibaar Sainabou mbay gisabuñ ko gisabuñ Sainabou mbete li nga xam ne mooy ñeneen Ah, gisabun ko waaye yaay Sainabou mu ngi noonu ah, broda ma ngi ko xoog ah, broda ma ngi ko xoog a ngi gis ki nga xam ne mooy yaay Sainabou Mbye moom moo sol black and white abaya bi ngeen a seen noonu kooku mooy yaay Sainabou Mbye moom moo sol black and white abaya bi Ah, mom gen ne kadi gis ah, mu ngi sol black and white abaya bi mu def kaala bu wees si boppaam bi and ah, ki nga xam ne moo nekk doomam bi di mohammed mu ngi ànd ak doomam bu ji góor bi di mohammed mbay ñoom ñaar ñoom ñoo ànda yaayi séena bu moom moo nekk noonu yaayi séena bu moom moo nekk noonu dinañ seet nag téelma li téelma téelma li li yaayi séena bu moo nekk di waaca ko yaay Seynabou moo nekk di waaca ah, jamono ji ma ne ko yaay Seynabou Mbye moo nekk di waaca ñu seet rek naka la ñoo mën a approche li nga xam ne nag ah, mooy yaay bi yaay Seynabou moo nekk ni di ah, romba ñu xool rek ndax dinañ ko mën a approche mère salaamaaleykum rek lu waral ngeen taxawoon si biti. non man dëgguma si biir xam nga. ngeen taxawoon si biti. dañ leet. da ngeen leet. yeah. Ah, mun mun mun nga ñu just a ah, interview rek please. yeah. one minute one minute. Ah, yeah just one minute. ok. Mohamed gis nañu yéen Mm. broda Sina bu waaw mun ngeen ñu wax lan waral seen tànk fii ah pour ñëw support suñu broda si rek mhm. waaw ah. as family members am yeah gis nañ ne yéen tey dugg leen ah, ngi taxawoon si biti ah, lan waral tey mënu leen a dugg ah léet la rek dañ léet mhm. loolu la rek naka um, mm-hmm. ngeen gisee mbirum um, mbirum case bi naka la nekk di demee ah alhamdulilah comme ni ñu ko waxee rek justice bi nii la moo demee daal mm-hmm. dañ ko jàpp si yàlla rek lu mun lu war lu xew rek ñu xam ne loolu la xam nga yàlla moom lu dogal moom kenn mënu si dara benn jaam mënu si dara so lii dafa waroon a ñëw suñu wéy rek so we will take it as good faith xam ne ne yàlla li la dogal te yàlla mun na moo def lu raw li you soo ñun moom alhamdulilah rek la ñuy wax nga ñu si sant yàlla xam nga. ñu bàyyi justice bi dogal waaw. te ma ne ko Sainabou moo nekk noonu ah, di ñëw comme ah, ni ngeen ko gisee ah, Sainabou ngi noonu di ñëw que Sainabou ngi noonu di ñëw. waaw comme ni ngeen ko gisee rek office si ñu ngi def seen liggéey ñoom it ñu ngi ñëw wa this way Sainabou moo nekk noonu Chérif. Sainabou moo nekk noonu Cerno moo nekk noonu si kanam Cerno ne nekk si kanam ah, ki nga xam ne mooy Kibili moo nekk si seconde Sainabou moo nekk noonu mu ngi smile ma ne ko mu ngi smile yeneen koo gis mu ngi smile ma ne ko mu ngi smile Sainabou dafa mel ni ah, ba léegi ni ngeen ko xamee woon rek ah noonu ngeen ko nekk di ko gisee mu ngi noonu di smile. Sorry, am officers yi tamit ah, ñu ngi xaw a ak li nga xam ne moo nekk presse yaay ay officer non non No, no, please, please. na bu mu ngi noonu. 啊！俺那你师傅，你师傅，你师傅。 uh, with uh, some of their uh, indictment and their findings in terms of how they will prepare their case. Uh, they said they have to do so many, uh, even the post-mortem on the dead body has not been conducted yet because it has to deal with the hospitals and other things, and they are not yet ready with the post-mortem results, and that will determine their indictments and other issues that they will forward before the court. So they were asking for the court to give them another two weeks' time so that they can prepare themselves to mention the matter but uh, the Defense Council, uh, led by uh, uh, mm, uh, uh, uh you know, actually disagree with the position of the state. He said that since there is nothing before the court, absolutely there is nothing because this was a transfer case from a magistrate lower court, that's the magistrate, to the higher court, and precisely today should be mentioned so that something will be before the court. And actually there is nothing before the court as we speak right now. So the court should invoke Section 19 of the Constitution, that's the fundamental right or detention it, it, shipping somebody in detention without being charged beyond 72 hours. So she said since there's nothing before the court, Senabu should not be kept uh, and the two brothers should not be kept any further. Uh, so he should invoke uh, section uh, 70, uh, 19 of the 1997 constitution. And she also went further to cite the CPO, that's the Criminal Procedure Code, that's 208 of the constitution that the transfer of a case uh, from the lower court. The state already know that this matter has been transferred and it since on last Monday up to today they could have prepared something before the court, but they did it deliberately deliberately just to waste the time of the court. And for them, they should not entertain that. So he was asking, but the court told him that if you have to do that, it has to be a formal application before the court. But you two didn't do any formal application before the court to say that, okay, we are applying uh, for the bail of our guy since the state is not ready. So there's nothing before the courts. You first do that and come, then we'll hear your application. We'll look at the substance of your application and then uh, give him the due that it deserves. But until then, then we will adjourn. So she promised that she will do the application today and the state has 24 hours hours to reply to their application. So the state too will wait for. Then Friday we will come here by 10 o'clock to hear the application and look at the substance of it, whether they will grant her or they will still maintain uh, the uh, charges that they are uh, unbailable offense on her until Friday. Thank you very much, Mr. Oh, yeah, actually, uh, thank you very much. Uh, comme nu ma doon wax rek moo uh, Come, tey comme xam nañ ne last Monday Sainabou Mbye the ñëwoon si kanam kaani fi magistrate court bi before Mr. Jaban, uh, Judge, uh, Magistrate Jaban, sorry, uh, and it, the matter was transferred to the High Court. And there was a uh, certificate of urgency that was filed by uh, Saint Defense Team Purumata Binu Degulko because already the uh, court be never them vacation since last Friday. So that certificate of uh, urgency uh, court be accepted now through the CJ. so the matter was transferred to. Ibrahim Ajaide, that's uh, Justice Justice Ibrahim to hear the matter. So today we came, uh, Nyauna Nfisi Kolbi, for the matter to be mentioned for the first time. Uh, but when we came, uh, the state prosecutor led by uh, P. Gomez, that's Patrick Gomez, uh, uh they informed the court that Nyom are right now because Hale Bibo Hamnes are Moneka, the uh, Sikh, uh, wax bi yëpp daanaka dafa then you were dañu war I def your exam put xam ne pour ñu what was the cause of the death The loolu yëpp senior because leptaan ñoo di def loolu yëpp so fu mu nekk ni ñoom dañoo ñaan code bi pour ñu mun a may and two weeks ñu mun a dajale loo xam ne daal seen indictment la lo xam ne dinañ teg tuuma yoo xam ne uh, si kaw uh, Sainabou ak broda mi yëpp ñu ngi dajale seen evidence te maata bi was uh, before the police just last week la ñëwee si ñoom seen loxo moo nekk Monday bi so ñoom prepare wuñ so police ñoo amee seen material facts yi bo tamit they have to do their further investigation so loolu la waxoon court bi mu ñaan leen bo ñoom seen defense counsel bi Kombege moo xam ne moo lead ñoom seen team bi ñoom Sagar they are almost four in number about Kombege moo doon speak on their behalf Kombege lu mu wax moo nekk ne ah, comme que dara nekkul si kanam code bi ngum ah, kon dañu war a jóg ah, constitutional right clients bi moo nekk section 19 of the constitution bi ñu bàyyi ko mu ñibbi ba balaa state bi bés bu ñëwee paree pour seen case bi ñu mun a ko oo duñ ko mun a teg benn place te caajuñ ko ba tey mu ngi fi ñu ngi ko pone si kaw loolu loolu constitution bi waxut ko te dem na tamit mu code CPA si criminal procedure code bi section 208 transfer of case bi mu ne case bi transfer ko depuis last te ñoom xam nañ ne transfer ba tey ñoom mun noo préparer dara loo xam ne daal mun nañ ko teg si kanam code bi dafa mel ni ñoom dañ pare pour West Coast seen time bi so moom lu mooy ñaanatu moo nekk code bi nag ndaaxa ah, ñoom seen ah, wax bi yëpp nañ ko tegee fale ñëw euh, bàyyi seen bu mu ñibbi ak ñi xanaa ba state bi pare but euh, presiding judge bi tamit justice Jaida wax ko ne loolu soo ko buggee tamit am na loo xam ne loolu ngay teg si kanami code bi moo ne euh, lii ak lii bi a laa déggul jamono bi su dee nekkul dañoo mile two bi balaa ñu ko mention ko fi dara nekkul si kanam code bi dafa mel ni ba tey si Kanifing luñ ko transféré fi bi mooy Kanifing Magistrate loolu moo nekk si kanam code bi so noonu lañ ko defee so dañ ko adjoint ba Friday ñi tamit dinañ prepare seen application bi ñu isi ko state bi tamit am na ñaari fan pour ñu gëstu ko ñu tontu ko den ñu dégul uh, substance yi lan moo fa nekk dañ ñu aatee ndax dinañ ko bàyyi mu ñibbi wala dañoo maintain ba tey seen position bi abarka bake okay bake ko bi im fele jare kam be banjun a uh, high court le uh, sena bu mbayla case le be jam an kana broda fula chimile uh, anin anin chorno mbay me dalon ko e charge nun kanife magistrate comme tena lu men tambita no ko e keta molde me ko sunta dena no le ka ko me bebe m ala sayala wo kamala yenan nan kod ñatilon la uh, magistrate jamba ñatilon la par ka bien na okiti bon ñatilon way ñene foka tala kod man sembo soto pour ka capital crime ñen kala mo wala fem me alon kala busaro mo life in prison lede wo mo fenede me alon ka kod ndingol buka la mo so kamala anata na fonko ta constitution ta nin section 99 anin CPA la fonko ñen ka mata ñen mutaka transfer 208 of the uh, criminal procedure code ay mata transfer to the high court so kaba transfer nanje wol fana la lawyer ka fame kombe geñol kata sakar nyolo fana ye certificate of urgency because ngalo na ko court tata lifo la kabin friday e kata vacation la tina for october but tele certificate of urgency dundi ame alon ko si uh, chief justice ya kayto nyil la moy kabaya la moy anata mata nyen saundi uh, eh, di uh, eh, justice uh, ibrahima jaitala pour wosi case nyin uh, nyin uh, la moy so bi nara wala pour si case nyin formally sa mention because bayra ma mention jana bayra is a capital crime alon ko nyin ko do moy so nara pour ka mention janne bon nyin state nara wala fo ko denano men fada nyande ka uh, jibero dol le kala karola kala nga fata nyadi la mun dalila fa pour que la evidence ol kafu nyoma sa yesna indictment of file uh, court nyaati non ka andande ko e ba tumula tumi nya jolle la anen sila da jolle so ko bare man pare wala be court dan le so lokum fulala yo ka be nyim fodo na da fo ko sa e nga defend fana la moy fotel be sonna wala fotel ba defend na da nyina fo ko bare fende court nyati non la wodo science intendi ta tele clair no mutala no ya muta uh, luwa nyati non la ba ni na 1997 constitution la way e silo yandandila la ko Uh, ni mo ni amuta ama nyanda ka tambi tili sabala ni ma arrange koto nyanda ka mare bulala so at relate uh, section 19 of the constitution pour ka andande la clano nyanda ka sele by the statement pare uh, ah, pour ka ila kol uh, nan nan kidi bungo nyati lon la kabiren tele lo men tambira uh, state ye nyin case transfer nan kabi wato kono itele silo be so dol pour ka la charge dada be même be kisi la ya kisi kisi bar san san state council be men yantande ka wala nyinde ko ni process ol tabe docteur so lebul anabe ko lebul so at tariano la ko laftar nya bar lokum fulare ke sulata la je uh, so bar nyi nyina yanda ndala ko bayre fente ko nyaati no letel fanal pareta pour ko de nyen bula anata ah, hanika uh, ah, fonkol uh, uh, CPU la section uh, 288 ka muda ka code ka yandandila ko nyilbe mo bundal let mele ala ko be uh, tumula wol kan pour ka yandandila ka bula bodoro fan hanata do rule of the high court nyen ka yandandala ko uh, rule 5 uh, rule, uh, rule uh, section 5 rule uh, ka yandandala nyilbe mo bundal let mele ala ko hani verbal application on sa kenol hani mankay do save so lafta because court yen ñina yantanda la ko ni fana lafta wala fo application o safe kana nan kiti bungo ñate nola ka andane ko ñin dalil lol latina lafta pour yenna mo bula statement pare akay ko bara verbal application lol ka sotole bara ñi manna so andanda la ko dal sa mbe bula application o safe ni ya safe nga jibe ñil fana le jabe tilfula bare bi mo arabolte tilfula arjuma lon sa la moy an si application o ñil la moy nga entertain kay bar hanente tamata bayre nte tara vocational jojol se sotonol melan ko be sila kiyo kono so mata ñen sawndi pour arjuma lon pour finaliser na mata ñen men sona dan sa am men follow kot ñaatileŋo la a ah, wo la so senabo be murla mail tu fo janniŋ a ah, friday fa be a soto la fata soto I'm gonna come back. you are a lawyer, but it's been a minute. You know, people have not seen you. I'm I'm defending cases here. I'm here. I'm here for a matter. I'm, All right, believe then you buy that. you asking me not to hello. How are you? I am here for cases belonging to my clients. All right. Ah, but it's been a minute. A lot of people think that you are not part of, you know, the justice system. In the no, no, I am. I am. I am. I'm a practicing, and I'm practicing. Yes. Ah, yeah. Still doing uh, politics. Very busy here. I'm, I'm busy with the court. If you come here, you'll find me here. All right, and you're also doing politics. forever. Forever. Thank you. All right, kona gislim hewan aka nakala fa hew. Um, Fatou Abaraka Bake, um, bifa nan ko ne gentele na tale jang um, Gambian Talents TV andung annal badi manem Sherif konté um, pour kam wol hakilo bulande doron uh, nyimmu case lete me yalon ko kiti wala me yalon ko uh, sena bombay wala ba kono nin ko sena bombay memu sena bombay ti uh, atale nun Abubakar Keita la musoti nun futo banta ani pour kam wol hakilo bulande hane kabi um, dindiŋo miŋ ye a loŋ ko eh, aboubacar keita tumin nuŋ wo la wo dindiŋo ñiŋ kita dindinti miŋ ye a loŋ ko a be kummayaariŋ baa ke kiitoo ñiŋ kono kaatuŋ ñanta tele le la pour ka long loŋ juma lem ah, ah, juma lem dindiŋo ñiŋ faamaati ah, woto wo kiiti do ani kiti do comme nga min fo ye ñoo soto lo domandiŋ so kamala wo dindiŋo ñiŋ naata fa bari dindiŋo janna be faa la on di fort july 2022 uh, walem uh, july karo uh, tilinani njango uh, 2022 sankono yelo ta bala biri yelo ta uh, on the 7 oda nata di pour yelo seta bari wata yelo ta already uh, bari min nata ke uh, kuol nyin kenya ba atata nyamin walem dindungo nyin fata nyamin uh, komi ya fonya ya soro ah, moto bunda wala sorontama a ah, tirta moto kono a tirta jele fana bata ama fan sotono so kammala ya samba laptanol to ina ra kana nati banjul laptan bato jang o kola ina bonde laptan bato ah, ina samba ka samba senegal pour kataje pour sa jarano bari anin senabu tata senabu nying wala mu dindingo bama koto mati bakelim fakelim dindingo nata fa senegal babra fata diamo siata jang diamo siata jang mol wulta iko imanyen ko fahamuno Come, kammala polisol nata presso soto a atteñi inspecteur general of police polisol la ñaton ko anatan ani sénégalais la interpol e ñomoy ye senabu nati nan uh, ka bonde nan uh, sénégal ka nati nan pour kana nan kana la ko kiskis inata ya nati nan jang o kita julay karo tilimwa anin fula keta wolleti uh, uh, arjumalungo suuto la a yela police station o atenin anin mo kotegol min yalon ko a kotoma o kono le anin i kafuñoma mi yalon ko ye wolle bel nun yol fanana bel taminin inate be muta bañul eh, inate be muta magistrat jana banjul uh, police station bato mi yalon kono banjul kono uh, ke be mutaje yelaje uh, ardumo yelaje sibito yelaje uh, ate dimaso par tenen lungolen kito nyi nyanta ka kenon bari kito nyi manna ke teno katun ko munen problème otinu police ko mam kiskisiro nyi e ma ban folo kitiyo man nake wolum uh, ah, talato kitiyo nata ke baraketa min dole wolem kani fi magistrate court wolem kati eh, kani uh, eh, kiti kiti bumoto mi alon ko kiti tela min sita ko kuntonu wolem uh, magistrate jabandi uh, ah, briya sina bu nati nanje uh, ala loyal nata nan uh, abdoulaye sane commissioner abdoulaye sane wala nata policeol toyala ni inspecto uh, lamin trawalle wala nata policeol toyala uh, inatana kitite la sitana nata si uh, kitio nyin kunto bar min naka problème oti nata senabu cha uh, manslo tala wala uh, mo uh, ni nata jube uh, section 186 wala uh, kiti kiti uh, kiti kitiran kitabo mi yalo uh, kitiran kitabo la uh, mi yalo ko ka fole uh, CPC criminal procedure code uh, uh, Criminal Procedure Code uh, ala section 208 section 208 a uh, kititela nata rely wole kan kaje ko atete kitiyo nyin sammano la woto kammala se kitiyo nyin transfer kanati nan ate nyin high court me alon ko wole be banjul jan kadon ase motata la kiti bona pour ka sammano bara sena bu charge num menna wole uh, man slota ti mofa sena bu ana koto ma anin uh, ikafunyo ma inata kitiyo nati nan jang ya sammanan high court uh, mine nata ke issue ti sena bu la loyal senabu la loya walam senabu akotoma anin uh, ikafunyoma fanan ila loya min keta sagarsi jahateti anin uh, anin uh, mrs gay wala na tana certificate of urgency eh, wala pour ka ko triande no kiti onin pour sa triande no uh, katun ko kititelal telal inyata lifola bari brio apply Uh, uh, uh, chief justice min keta asan jaloti atele so soñin kuwañin na pour kitoñin sita ka continue bi wala keta biti oto kamala bi wala keta daliloti pour senabula najang anin kotoma anin e kafuñoma pour kana kela kitiyola moy bari birin futata da konoto minen keta issue ñinti banko la banko e loyal min nati nan ye même fo kititela e wolem ko itelman pare folo ibe kiskisiro men kan kato ni nataju be uh, arbiti he uh, laptano to laptano be kiskisiro men kan men ke ta post mortem de pour ka dindi wonin ka balo kiskis isaja so lonno uh, muni ha fa pour be so lonno wo man pare folo woto kamala itel ibe la ferin pour kiti tela se kiti wonin ka nyori nyato hana be kala lokun kilinati wala lokun fula isaje wo kono ise prepare no e finance fem file no e ka fo indictment pour ka pour ka uh, loi ibe tukula loi loi men la finance o sambananno uh, pour ko kiti o ñing asitano uh, bari uh, biri wo keta ateñing kombe gay min keta sagar e eh, mun keta um, senabula loya senabu ñolla loya ñaton ko mun kombe geyte ay mem fo wolem ko a ñul nin femmanna annung ye wato sutule num wato miyalon ko a wato jamfatal num isi ku ke no le kabrin sa fu lungo minna kiti o nyin lungo eh, minna bunyol samba ye samba ke samba remain kabri wolun wa nin mo logun kini isi ku ke no le wo kono men sa tina no kiti o se continue no bi bar coming in fem man na woto bankola constitution wala bankola luwa kitabo ala bunda tang anin konon ton jango woto wetel semmentu ya ala kaje ko Eh, kiti tela ñanta sena kuna a doñol bulala pour yeta so kono kaatu ñulni femman na eh, bari min naata ke problème o te wolem ko kit eh, bankola loyal ñim fana naata men fo wolem ko ye senabu charge men na amanke kuti mi alon ko anyanta bella no le amanke kuti mi alon ko anyanta bella le woto kam wala hani sai itel bella firinde doron katun ko mam pare be min bele mam pare folo woto kam bella firinde pour kittitela se sono dal ka nyorido man nin fo isaje ko ise pareno inin kusinano mi alon koye bole yitandela uh, eh, kittitela uh, eh, nyatelen wala bari anata ke uh, eh, nyo saban ninti e fulol tema min nata ila e ko labantana damin wolem uh, wolem kaje ko kitiyo nyin isa sawundino katun ko um, senabu nyolla loya kole ite momutan wala watele biye mi alon ko imanyana tambilolo e momuta e imam e femfono ay menke woto biri wo keta uh, kititela nataje ko woto ise fereke ye ben kanto lungola mi lon ko uh, nyin kitiyo nyin abe continue la wolungole bari fanna fulo be nata na kambe muna wolem arjuma lungoti uh, goskaro ati lulo la pour ise na si kitiyo nyin kundo bari uh, kititela e men fo senabula loyale wolem ko alte ñinte bel no la katun ko alnin kayti man na ka dunni kayto mi yalon ko wala bayi la ko al paretale uh, pour ñing asetano so ko al fana mo nati ali afo al dal la jang bare al man kayto nati officially pour ka file uh, bari uh, di amo meta bari natala ba wolto kaje ko wala ñanta kake uh, senabula loyal enen kayto ñanta na la mi yalon ko be min file la pour kaje ko uh, senabu ase belno nin bankola mol nin femman nana hani kabi katu ate terlano mabo kono uh, bankola mol man tumirol ye min lakunto e man finnatino mi alon ko asilaw tumirol support no oto kitiyo ñing inata sawunde kasamba arjumalungola arjumalungola oto ibinala nanne uh, senabula loyal ibela ferin ka filing ke kaje ko uh, pour senabu ase bono eh, abe damen to ana bula ye firi ibe wolen atala nan ardimalungo oto ardimalungo fanan eh, bankola eh, bankola loyal fanan min be banko to yala wol fanan be fero kelale ibaje ko ibe min kenola kaje ko eh, pour kitio nyin uh, asitano kumetel fanan laftala ñamin alna albadi mala nu uh, sirif konte uh, hani kabimbe mako dila fatula ase kuma kan dantan bonda leñoto nin uh, surwa kan wala Euh, jërëjëf Chérif fana Chérif wax na yëpp euh, si euh, wàllum wolof wàllum mandinka ak li nga xam ne mooy angale bi kon nag nii la moo demee incha allah Chérif ba ajuma dinañ ñëwaat fii indil leen li nga xam ne mooy xew wax naa leen ko all the time télé yi bari neen waaye bokkuñu Gambian Talents taxawu luñ fi kenn luñ fi taxawal mooy li nga xam ne mooy dëgg luñ fi taxawal mooy li nga xam ne mooy justice kon nag seen mbokk la woon Chérif Konte ki nga xam ne mooy Ndeye Fatou Jaxate ki nga xam ne mooy Youssouf ah, Ba ah, ñun ñoo leen fi nekkaloon ah, seen mbokk seen xarit Fatou Samba kon nag ngeen taaxeelu rek incha allah dinañ leen inel moo programmes yoo xam ne di ngeen gis lan mooy xew wax naa leen ko toogaluñ fi kenn tey duñ fi waxal kenn duñ fi waxal nguur duñ fi waxal li nga xam ne mooy justice system ba tey li nga xam ne mooy Ida Seynabou la oo bopp bat luñ fay nekkal mooy inil leen ngeen dégg ko Seynabou ñëw na tey gis ngeen ko mu ngi Euh, dugg na yóbbuwaat nañ ko fi nga xam ne mooy euh, mile euh, two yaayam muy ki nga xam ne mooy ndeyam taraay ne nag wax ak moom but unfortunately mënuñ ta wax ak moom waaye ki nga xam ne mooy brodaam bi di Mohamed moom nag wax na ak li nga xam ne mooy presse bi mu ne incha allah bàyyi nañ ko si loxo yàlla kon nag yéen a ko dégg yéen a ko gis Gambian Talents TV la jërë ngeen jëf vidéo si kanam tuuti rek ngeen taaxeelu ngeen seetaan the real video boo xam ne caméra bu mag bi moo ko defal jërë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 ngekon da baraka be ba mbe kere mbe kere babu wolom aka kenu nyameng ni ko aka kenu nyameng nunto adol be le parce que ni amoy ko aado nañ cosano ka hada ma dingole signifa ite mu jumaale ite bota jumaale bala wol fanal bota jumaale fanal bala ñu ne lan dekil sa ada aso cosan ake ko nun ñami num nak amé dem babu ko ni dinni ko jibe e ko aka lon ko yemem fo xama sa ada asa cosan motax gambian tren tv ak ibu ak babu ñu tok ñu ne fak min dunna sun asasdi asun cosan ɗum to alfal kela dimbaya li ke kuluno ñaadile ke kulu ñaadile fof ɓuuterolon ban fo ɗum i ka domorolle dila ban foy ka mum le dila ñin programme ole bi o be sene andi la kon kene kunega bo buke ham sa adres to cosan funga baye ko samma funga baye ko nun to alfalu ila sunkurundigol ke pare ñaadile ila dum fengol fanal be ñaadile ko mun dum fen sifalle fanal dum ñin programme ole fanal be o yitandila nenarani ku watti sa ande andu woɗon ngafteggo fofam tel dindi mankaje kebal ka julo siti yiro balay ka fo finja julo gay koy ɓe siring eɓe kuma jiijalla kumol bitay do taarikol fola dindigol ye lu doon am démba lu tax amatul tey la moo tax tokk suñu nasaraan fàtte suñu aada ak cosaan ake kennu ñaameng aada ak cosaan ake kennu ñaameng toppal lañu alxames bu jot juróomi waxtu ba juróom-ñaari waxtu fan la mooy amee si Gambian Talents TV Ibou la ak Babou